ñoom itam dañoo war a fësal seen ab tànn yéenekaay kay bi nga xam ko doon ngir xool jongante yooyee fan lañ ci toll ak yan matukaay la ñu ci jël yéenekaay bi du ñu xamal ne Aly ba mu dikkee nag yëkkati nay kàddu daal di xam yi nga xam ne kay moom moom li nga xam ne xewoon na ci législative yi ñu jàll waaw danañu fexe ba loolee du fi am waaw kaaraange gu mat sëkk daal dinañ ko am bu ko defee sénégalais yi dañu xamal ne carte yaa ngoog mbañ gàcce yaa ngoog waaw fi mu toll daanaka nu golo xam bootee doomam waaw bu ñu ca eggee ku nekk daal nga koy tànn kala saf

dee waaw waaw bi fi nekk kay bugg ca dara bu dee nag maître Madické Niang moom nag mooy xoromu campagne waaw maanaam ay waxi reetaan lu lay wax maître Madické Niang borom bàyyi nag professeur bi waaw ku ji na toog na ba bëgg toogaale yenn ci ay sénégalais waaw ndax kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko journal bi jàppee ko moom ak wax waxeet goo xam ne Abdoulaye Wade def na ko waaw gannaaw kàddu yi nga xam ne moom la waxoon Abdoulaye Wade nag léegi kay nee moom te képp koo xam ne diggal nga ko élection yi dangay boycotté waaw maanaam lànk bañ a vote maa nga ci suñu làmb yéenekaay bi nag sampab di laajte ndax Balla Gaye 2 mi waaw kan la war a mën a bëre yéenekaay bi di ñu ne moom Balla Gaye lan moo war a nekk ëllëgën ci làmb ji nga xam ne nag moom la nekk ndax Eumeu Sène mi nga xam ne moom la war a bëreel wala déet Eumeu Sène moomee boole nañ ko ak Modou Lo